fii ci ëttu cheikh bu Mouhamed Kunta ci urumu xalif général bi bi ëmb ahlul kunti ak tariqa al qadiriya mu cheikh al bekaay ibnu cheikh al bekaay mi ngi ndokkeel kon askanu senegal gépp ci weer wi nga xam ni moom la ñu weeru rajab te rajab yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ñu ni mooy weeru yàlla rajab mooy ca jaahiliya bi lislaam ñëwagul ku ci masaan am ak sa mbokk benn xët-xët donte deret nga koy topp ci bàyyi bu mu la reyal wala rak su weer wi masaan teru da ngay denc sa ngànnaay ba weer wi dee kon weeru jàmm la ñuy ndokkeel nag réew mi yëpp ci weer wi ci barke weer wi sëriñ bi waxoon itam ni mi ngi ndokkeel ki nga xam ni moom la yàlla tànnalaat Sénégal di président Macky Sall ndax lépp ci ndogalul suñu borom la yàlla mooy fal mooy folli moom nag yàlla ko falaat ci boppu réew mi kon moom ak lamu jaboote mi ngi yékki kàddu ndokkeel di ko jagleel monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal di ko ñaanal itam yàlla ci li nga xam ni moom la ko yàlla dénk te lépp ñoom ñi nga xam ni ñoo seq Sénégal di sëriñ si ak nitu aada yi mooy sénégalais yi dund ci jàmm am jàmm Sénégal jëm ci kanam mi ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla defal président Macky Sall ci lépp loo xam ni njariñ la buy dellu siwaat ci askanu Sénégal di wax rek ni ndokkeel loolu mu koy ndokkeel itam mi ngi koy wasaare ci réew mi di ko xamal ni itam responsabilité dafa diis ku ko yàlla nattoo itam nattu na la waaye boo bàyyee xel ci nattu yàlla boobu incha allahu yàlla mën na laa dimbale waaye li nga xam ni rek moom la koy digal di ko digal boppam itam di ko digal askan wi yëpp mooy la yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxoon rek na nee na yonent bi daf ni ida qarat ida qadarta ala aduwika faj'alil afwa shukran lillah yonent bi nee na nit day du ñàkk noon waaye bés boo xamee nit yàlla dimbale na nit ki ba mu am doole ba mën a fayu ci noonam na jël loolu ñuy tuddee njëggal teg ko ci kanam ngir sant ko yàlla loolu itam gannaaw bi mu ko digalee boppam mi ngi koy digal képp koo xam ni yaa ngi yeewoo ci réew mi te ame benn responsabilité gannaaw loolu itam mu ngi yëglewaale ziar am bi nga xam ni moom lay moom la fi wutu ay baayam wutu fi ay magam mu di guddi cheikh bu Mohamed Kunta war a am ci weeru baraxlu ca fukki fan yi ak ñeent comme nag baraxlu taxawagul mën a wax bés bi waaye ak lu mën a xew mooy du passé fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril jëm ñaar fukki fan ak euh, ñaar fukki fan ci weeru avril ñaari bés yooyu du ko weesu waaye bu ñu demee nag ba bés bi taxaw incha allahu nga xam ne séntu nañu weer wi mu feeñ su boobaa itam jotaay bu mel ni daañu ko toog ak yéen waxtaane ko ak yéen kon loolu it sëriñ baa ngi koy bàyyi ci noppi njaboot gi mi ngi ñaan yàlla nag na mu ko daan waxee rek lii nga xam ne moom la yàlla boole te mënuñu koo séddoo muy Sénégal te kenn ci ñu mënu koo baal sa moroom te fawuñu dund ko mi ngi ñaan euh, suñu borom subhanahu wa taala di ñaan itam ñi nga xam ne ñoo seq réew mi ñëpp ñu rafetal dundin googu ndax Sénégal jàmm rek moo fi xaj Sénégal jàmm rek a fi xaj jàmm jooju itam moom la ñuy woote moom la fi yonent bi bàyyi te képp ku jullit nag yàlla conditionné na la ci jàmm jooju ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf ñuy wax ni inna allaha jaala salaama tahiyatan li ummatina wa amaanan li ahli zimmatina yàlla dafa jël baatu jàmm jox ko sama askan muy sama xeet ñu di ko nuyante ci seen biir salaamualeykum waaleykum salaam waaye mu nekk itam sécurité boo xam ne day dox suñu diggante ak ki nga xam ne bokk ñoo moom diine kon gis ngeen ni jullit wala baatul islam ci boppam jàmm rek la ëmb moo xam ki nga bokkal pas-pas la moo xam ki nga bokkalul pas-pas la waaye jàmm jooju moom lay ñaaxe boppam di ko ñaaxe réew mi di ñaan yàlla it subhanahu wa mu téyel ñu jàmm jooju ba nga xam ni fi ñu bëgg a yóbbu réew mi yóbbu fa askanu Sénégal yàlla dinañu ko defal ginnaaw loolu xam naa muy ñaanal rek ay rakam yi nga xam ni ñoo nekk ci wetam te di ko wéttali waaye di ñaanal it ay doomam ak jarbaatam mais di ñaanal it taalibe yëpp di leen soññ ñoom itam ci euh, fonk seen diina te jaamu yàlla te it maandu ci lépp loo xam ne mën naa mën naa mën naa indi leen nañ ca maandu lu seen yoonam lu seen yoon nekku rek nañ ci maandu mi ngi ci soññu taalibe yi bu baax su ko defee doom yeeg jarbaat yeeg cheikh yi taalibe yeeg ñëpp ñu dëkk ak moom sëriñ bi nee na mi ngi leen di ziare ci weer wi di leen ndokkeel di ndokkeel bokki kuntam yëpp waaye di ndokkeel itam nag nawleem yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di xalif généraux yi kenn ku ci nekk jox na la loxo xolam di la ndokkeel ci weer wi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.